وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول المولى تبارك وتعالى في محكم كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول جل مولاه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين عباد الله فهذه كلها إن دل على شيء ألا أن محمد هو منقذ البشرية mbokki jullit ñi ngi sant yàlla tabaraka wa taala moom mi nga xam ne képp kuy mbindeef moom tabaraka wa taala moom moo la moom moo ñuy di wàccee ci ñun mboolem ay xéewalam di faj suñuy aaju waaye di dindi suñuy tiis ak suñuy njàqare di julli di sëlmal ci sangu sanga yi yenente bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne moom mooy sangu arab ak mbooleem giir yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf yal na yàlla wàccee mboolem xéewalam ci moom wàccee ko ci ay saxaabaam ak képp koo xam ne mu ngi xàll seeni yoon di niitu seen njub ba keraa ñuy ci boroom bokk yi bokk yàlla ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla tabaraka wa taala boroom boobu de moo wax ci téere bi le dikkal ne leen ab yonent bàyyi ko ci seen biir moom de yitteel na ko lool dana ko naqari lool lii di xew seeni biir ci ay jafe-jafe te xeer lool it ci lépp loo xam ne mooy jàmm julli bi ak seeni li ngante ne mooy mucc ginnaaw loolu lépp borom bi ne moom de ko am ñeewante la ku am yërmaande la jëmee ci way gëm ca suratu tawba borom bi di waxaat ba léegi ci téere bi de yàlla tabaaraka wa taala dafa jël li gën a mag ci àdduna mu jox ko jullit mu nekk seen kado kado boobu mbokk yi moom mooy ba mu leen yabalee muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy seen yonent yonent boobu mu ñëwee mu leen di jàngal wax yàlla tabaraka wa taala yu mucc ayib di leen fóot di defar seen bakken seetal leen seen tilim tilim génne leen ci seen jikko yu ñaaw ak aada yu bon ya nga xam ne moom ngeen aada wowoon lu jiitu yàlla di ko yebal ci yéen moo tax ba muy ñëw borom bi nee na mu ngi leen fekkoon ngeen nekkoon ci ak réer mbokki jullit laayaat yooyu amul lenn lu muy tegtal lu dul ne yàlla tabaraka wa yabal bi mu yónni yonente bi ci ñun dafa ñëw ngir sauver li nga xam ne mooy humanité bi muy yenente bi dafa ñëw ngir muccal doomu aadama yi génne leen ci alkane goo xam ne mu ngi leen doon yóotu waaye yóbbu leen ci ak pexe loolu la yàlla di junj fële ca laaya bi ba muy fàttali julli ni moom yàlla tabaaraka wa taala may yi mu leen defal ak xéewal yi nga xam ne moom la mëmbësal seen biir di leen yéegal ne mayub yàlla ci yéen nekku rek mu jox leen alal ju doy wala jàppandil leen dund koo xam ne dangeen ngeen ci mën a deme waaye borom bi ne na bàyyi leen xel te fàttaliku ba ngeen demee ba tiim kàmb goo xamante ne toskare la waaye alkaane la musiba gënoo rëy ngeen naroon ci tab moom yàlla tabaraka wa taala mu muccal leen ci génne leen ci loolu waaye teg leen ci nga xam ne moom mooy njub te loolu mooy lan mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bookee foofu lañuy ñuy déggee ne jullit ñi dañu demoon wala doomu aadama yi dañu demoon uti kan ba goo xamante ne si la ñu naroon a dugg mu nekkoon seen toroxtaangi waaye nag moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo yor lu xam jox leen ñu tee mu génnee ci loolu teg leen ci li nante ne mooy yoonu jub kooku mooy kii muccal doomu aadama yi loolu mbokk yi muy feeñaat ci discours ba nga xam ne Seydina Jaafar ibnu Abi Talib moom la teniiroon jàllale woon ko ci kanam buur ba muy Annajaasi keroog ba nga xam ne Màkka bundu xatal nañ leen ne li ngeen di muy diina ju du fi amee ndam yenente bi yebal leen ca fi ngante mooy Éthiopie ne leen dem leen am na fa buur bu mën du nangu ñuy tooñ benn doomu aadama ci kanamu ashaahid li ñu soxlaa foofu mooy keroog Seydina Jaafar kaddu yi nga xam moom la yëkkati ci kanamu buur mu ngi yëgal buur bi ne ñun de daanaka dañu toroxoon ndaxte dañu doon dund dund njaay àll ku jekkoo ci ñun sa moroom fadd mbonte yi dañ ko daan defe lu mu ñu neexe daan ko dikkee lu mu dëppoo suñu bakket ñuy sàcc di def ak ñu di dem mboolem li ngaante mooy aw ñawteef ba yàlla yónni ci ñun ab yonent bokk mu ne ba yàlla génnee si ñun ab yonent yonente boo xam ne xam nañu ak dëggoom waaye xam nañu aw askanam mu wóoñu ci yàlla gindi ñu ci réer gi ñu nekkoon nee na fa aadaana xaw na suñu xeete suñu mbokk lii lañ ñu meree lii lañ ñu noonale suñu bàkkaar nekkul lu dul topp mbégte moom nga xamante ne moo ñu digal mbokk loolu nee na tegtal la ba tey buy wane yeneen di saa sallam ni mu sauvé ni ngante ne mooy doomu aadama yi moo tax ci wooteem moom yenente bi da gis ne daf ko daan metti lool benn jëmm wala benn bakket boo xam ne rëcc te jàllale ci moom woote bi yàlla bokkoobu deewaale ak li ngante mooy ak kéefar xoolal Abu Talib nga xam ne mboolem bu baax defar na ko yonente bi taxaw na fu ne ci jamono yi mu gën a méttee ba yonente bi yëg loolu reconnaître xan fi Abu Talib toll woon ci moom waaye ak loolu lépp Abu Talib mu ngi yoroon li nga xamante ne mooy diine kéefar mais ba mu demee ba toll ci lalu sukuraat toll ci lalu sukuraat di waaj a faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg koo muccal ci li nga xam ne mooy mbugal mu nekk ci kanamam keroog la la Abu Talib yaa am qul kalimatan ushidu bika amaam Allah yow sama bàyyi benn kàddu dong laa lay laaj ma taxaw plaidel la ci kàddu googu ci kanam borom ngir nga mucc xoolal jiite boobu nga xamante moom la amoon ngir rek benn jëm du jëm fi nga moom mooy kër gu naxare ga noonu it la doxe woon diggante ak benn xale bu daan fooy kër yonente bi wa kaana yahudiya benn xale yahud bu daan xëy rek kër yonente bi dem di foofu xale boobu bi nga xamante ne mu ngi toll ci sukuraat ñu ñëw oo yonente bi yen bi mu ñëwee taxaw ci wetam yonente bi nag waxal rek laa ilaha illa allah xale bi gestu xool ngir ragal mu bàyyi li ngante mooy diine bàyyam di topp kii mais bàyyi bi ne ko ati abal xaasim yow sama doom toppal bàyyi xaasim xale bi wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah li nga xamante mooy ruux ga dog moo ki jullit kooku mooy yenente mi alayhi salaam loolu moo taxoon yàlla yoon nekk ci ñun ngir mi nga ne mooy adduna gi ñu nekk nga xam ne ay tolof-tolof la ak ay nat ngir ñu génnee bés bu ñu demee ci boroom ñu teeri ci kër bi nga xam ne mooy këru aljana di këru xéewal noonu la wéyee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di woote daj ci aw xeetam lu nekk tàmbalee ko ca màkkatal mukarram mbir ya neexul ba tey mbokki jullit yonente boobu moo gën dem fi ngante mooy ak tawaif saqif ngir muccal leen ñoom ci li nga xamante ne mooy mbugalu safara bi mu demee Taif comme ni ñu xamee histoire ñu boole ko ay xale ak ñoom te dañoo dese ñu di ko sànn ba nga xamante ne deret mu ngi génn ci yaram bi laaqa min al qawm maa laaqa comme ne Cheikh Sidi Hayma waxe ca miim yam ni xilaas doon ne daj na ci li nga xamante mooy aw nitam loo xamante ne bu ma bañul woon nettali lu ñaaw danaa leen ko wax xale yi bañ ko sànnee ba nga xam ne moom deretal na sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit malakul jibaal malaaka yi nga te ñoo yor montagne ndaxte taif réew la moom ren ñaari montagne ñoo ko séq réew mu ndaw la ñaari montagne ñoo ko tiim malaaka ñoo nekk sa borom de moo ñu yebal ngir nga jox ñu ndigal ñu mag ba ñaari montagne seen kaw ndiggee jëf ju ñaaw ji ñu la def ñoom ñëpp faatu mbokki jullit bi sallallahu alayhi wa ak lu metti lam fa def yëpp ak ni nga nañu ko toroxalee yëpp waaye mu ngi delluwaat ci boroomam di wane ne moom yonent bi moo gàttañ amaana ñàkk a matal mission bi comme ni mu ware moo tax li nga xam mission bi échec mu wax kàddoom gu rëy mu ne yàlla tabaraka wa taala yow mi nga xamante ne sa leer moo leeral adduna niital li nganteel mooy montagne ak suuf yow yàlla de maa ngi tim ci loolu ngir nga bañ a saw sànge ci man mooy sa mer walla ngay wàccee ci man bugal waaye yow suma boroom soo ma merewul rek garaawul danaa yeggal li nga xam te mooy woote waaye ñii nga xam ñoo def lii nag ñoom maa ngi yaakaar benn jëmm benn jëmm rek génn ci ñoom nekk li nga xam te mooy ab jullit faatu ñoom ñëpp maa ngi am yaakaar si yow sama boroom ngir benn jëmm tuub yeesal nga moom duggal ci li nga lislaam fa ajaaba allahu mbokk yi yàlla nangul ko ñaanam ndax dafa nga def toog ci jardin nga xamante ne ñaari xale ñoo ko ba nga xam ne jardinier bi muy Abdaas seen na mu sonn ak na mu deretale mu ñëw ba jege ko ni li nga xamante mooy ay ma jox waaye yëkkati ndox jox ko mu naan yenente njëkk mu koy dugal ci biiram mu ngay tudde li ngante mooy bismillahi rahmaani rahim addas ne ko kàddu gi nga yëkkati de réew mi mënuñu ko fi lii lu tumuraanke la fi yenente bi nekk yow fan nga dëkk mu nekk man maa ngi dëkk niinuwaa mu nekk niinuwaa mooy dëkk suma mbokk ma yenente yàlla yunus ibnu mattee addaas ko ndax da xam yunus mu ne ko waaw sama mbokkum yonente la mu ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah sànq mu ngi doon yàlla benn jëm tukkee ci ñoom dugg ci lislaam yàlla nangul na ko jëmm jooju boroom xam-xam yi ci siira dañuy wax tey tooy foofu demee amul kenn compte bu fay bokkaale yàlla ñëpp ay julli lañu mbokk yi su fekkoonte ne na yàlla dëkk boobu maam ba tey est-ce que loolu tey dinañ ko am kon kooku moom mooy ki yàlla yoon ñëwoon ngir ñu muccal wala ngir mu muccal doomu aadama mbokki jullit kon nañu delluwaat bu baax ñu jàngaat li nga xamante ne mooy jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaat li nga xamante ay digleem dem gëstu li nga xamante ngir ñu mën a bokk ci nga xam ëllëg buy jël aw nit bu bari ànd ak ñoom biir aljana su boobaa ñu bokk si ñooñu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafur rahim alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi allazina istafa والصلاة والسلام على خير البرايا أحمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit ñu ngi santal yàlla comme ni mu yeyoo moom tabaraka wa taala ñu sant jullit ci yonentaam sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu wàcceel waamee xéewal ci moom ak i saxaabaam ak képp ku jaar seen yoon ba gara ñi wuji borom bokki jullit yi ar rasul sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ngir firndeel ne yebaloon ngir mu nekk sauveur de l'humanité mu jël xeet ci danger bi nga xam ne moom moo nekk ci kaw suuf jëmee fi nga xamante ne mooy ilaa jinaani rabbihim seen aljana boroom sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mooy nettali di wane xëru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu woon ci xeet ni mu leen yéene woon jàmm waaye ni mu képp koo xamante ne mu ngi nooy rek ëllëg mu nekk ak moom ci biir aljanna Aysa mooy nettali mu ne benn guddi dañu tëdd maag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba ma jàppanteeg ay nelaw boo guddi gaa ngi sori jekki saay ma bépp bi ma bébee ma dawal sama loxo di làmbatu yonente bi sallallahu alayhi wa ci néeg boo xam ne bu lëndëm la woon nee na doo gis kenn bu fekkent ni yaa ngi moom ci néeg ay sa nee na may làmbatu ba lal bi jeex gis ma yonent bi salaa sallam ma wàcc ci li ngante mooy rum muy dër di làmb nee na ba daj li ngante ne mooy tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dégguma ay kaddu waaye am na lomte maa ngi dégg benn son nee na ba ma jegee ba li nga xamante ne mooy gémmiñam nee na yonente baa ngi jooy ay jooy yu métti waaye mu ngay ñaan ñaanu yonente yàlla Isa ba la Isa waxoon ginnaaw bi mu wanee ne boroomam ñii ñëw sama ginnaaw di ma askanal ak yàlla man dañ naa ci ndaxte ak jaamu yàlla topp ko moom dong laa leen oowoon waaye sante woon kenn ngir mu jël ma teg ma place yàlla isa wax ne yow yàlla sama boroom ñii de in tu'azzibuhum fa innahum ibaadu ay sene loolu laa diggante mu koy ñaan yow yàlla ñii boo leen say jaam nga mbugal de yow yàlla ñii soo leen mbugalee say jaam nga mbugal waaye boo leen yow yaay kii gën a mën a jéggalaat nee na kàddu googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy di ko répété lu bëree bëri boole see li mooy ay jooy métti kon mbokki jullit yi loolu beneen firnde la ba tey ci moom sallallahu alayhi wa sallam fi himmatihi li inqaaz al bashariya yitte bu réy bi nga xam ne moom moo nekkoon benn yitteem mooy muccal doomu aadama yi beneen bi mbokki jullit keroog ba nga xamante ne moom sallallahu alayhi wa sallam adda maa yajibu adaahu matal na la nga xam ne moom la ko yàlla yebaloon dénkoon ko ko ngir mu jottali ko fii xutbatul widaa ci li ngante mooy ca xutbatul widaa nee na keroog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doonte mu ngi nekk ci ay bésam mu mujj mu ngi bàyyiloowaat xeet mu ngi leen di dénkat ay kaddu yoo xamante ne saxaaba yi ba ñu ko déggee keroog masuñoo dégg yéen def sallallahu alayhi wa sallam muy waxee noonu moo tax ñoom ñëpp keroog seen rangoñ dafa génn seen yaram dafa daw waaye bokk na la gënoon a fes ci li nga xamante ne moom la leen dénk moom sallallahu alayhi wa sallam yéen sama xeet bu leen dellu ginnaaw bu ma leen fi bàyyee ngeen nekk ay yéefar ñii di rey ñeneen waaye di lekk li nga xamante ne mooy axu ba moroom ak yeneen ba ni nga xamante ne noonu lañ waxee ala hal ballag ndax jottali na saxaaba yi ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg jottali ko mu ne allahuma fashhad yow yàlla sama boroom seedeel mbokki jullit kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mooy la nga xam ne moom moo ko taxoon a ci kaw suuf waaye lii mooy lii mu ñu fi bàyyi waaye nag as-su'aal laaj bi mooy mbokki jullit ak jàngale bu mucce bi yëpp sunna bu leer bi ngante moom la ñu fi bàyyi nii nga xamante ne amul benn doxalin ci kaw suuf ci mbooleem doxalin yi ngante ne moo am ci àdduna nga xamante ne jàng nañ gis ko ñu daan doxal àdduna ba tey doxalin yooyu yëpp amul benn doxalin bu ci dab doxalin yonent bi saa sallam naa yonente waaye doxalin Seydina Omar li nga xamante ni taarix dañu nangu ne nii mu yore li nga xamante mooy réew amul kenn ku ko mas yore waaye yonente boobu ci jàngale bu leer bi ci message bi nga ne moom la ñu ci ay fanam yu mujj ba seede ne ñun de moom de yeneen saa matal na waaw koon lan moo tax moom yonente boobu ñu dellu ginnaaw ci li ngante mooy jàngaleem lan moo tax bi nga xam ne moom la ñu ñu bàyyi ko fi di jël ak di xal yeneen i jàngale ak yeneen i doxalin lan moo tax moom yonente boobu jëmmaam jooju bés bu ne ñuy seetaan ñuy teg li ngante mooy ci deram lu ñaaw ci ay kàddu yu ñaaw ci ay tuuma waaye ci toxal même diggante mooy jëmmam sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki jullit yi ndax la yàlla tabaraka wa taala waxoon dafa wàcc si ñun am lam yaarifu rasulahu fa hum lahu munkiruun yàlla nee na ndax jullit ñi dañoo xamul seenum yenente bopp yàlla nee na ndax ñun dañoo xamul yenente bi yenente boobu nga xam jàngal nañu lépp waaye leeral nañu lépp waaye nag ñu sori lool gàttal ñu lool delloo ginnaaw lool jàngaleen bu leer boobu te bu dul loolu moom de adduna gi si lëndëm lay rek doomu aadama yi nëgal ni kat waxtu dañ doon nekk ci leneen i diine ak yeneen i jàngale comme ni ko Cheikh Ibrahima waxee ndeysaan ca li ngante mooy xasidatu nuuniya di wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa moom de moom mooy jëmm ji nga xam ne moom moo ñu fekkoon ci diine joo xamante ne dañ ko doon jaamu waaye mu forcé ñu xamal nañu lii mooy diine bu ñu war a jaamu ak njubam nee na mu leeral ba mu féete kaw mboolem ba neen ak fekk af li ngante mooy kéefar ak njaay Allah mu weccoo ko li nga xamante ne mooy jàngale bu leer waaye fexe ba remplacer ñu diine ci li nga xamante ne mooy diine bihi aynan uninna laysa bi ayni mu ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di jàmm moom yenente boobu moom moo tax nga xamante ne moom la ñu naroon a tàgg delloo ñu mucc si nee na laysa aynun yumaasiluhu amul koon yenente boobu benn jëmm boom dana war nañ ko naabtaable ak moom waaye moom yonent bi bu doomu aadama yi amee tey moom moo leen ko kon mbokk yi nañu xoolaa suñu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci ñi nga xamante bu ñuy sedd wala bu ñuy bëggoon yénte ak toog bëgg di seddu ci ay mayam su boobaa ñoom du ñu sedd loolu nag bu ñu ko bëggee am mooy nañu jàng delluwaat si jàngaleem roy li nga mooy sunnaam jàngale bu leer bi nga xamante moom ñu fi bàyyi ñu bañ boo xamante ne buñ ko toppee ba si biir danañ gis ne dafa fees del ak ay manque fees del ne doomu aadama moo ko doon bind ndaxte doomu aadama doomu aadama lay doon lépp lu mu bind tracé ko rek ak gàttañlu ak li nga xamante mooy gàkk ak manquement dana ci feeñ yann yàlla delloo li nga xamante mooy jullit ñi ci roy yonent bi sallallahu alayhi li nga mooy sunnaam waaye delloo bëgg ko jëfe li nga xamante moom la jàngale allahuma taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabu rahim allahuma yassir lana umurana wa kaffir anna sayyi'atina wa ahtim bil baqiyati salihati a'malana allahuma farrij ham karbal mahmumin wa ahdid dayna anil madinin wa salli allahuma wa barik ala sayyidina muhammad inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر ولا يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله